Bonsoir à toutes et à tous. Très <laughs> heureux de vous accueillir sur ce plateau du Grand Rendez-vous euh, avec comme chaque vendredi Sassoum euh, qui est directrice générale de Kaymo.sn. Bonsoir. Bonsoir Sassoum. Et aujourd'hui avec euh, monsieur Ahmed Soumaré qui est directeur général de Cannes Exécutive qui est un centre africain de la nouvelle économie. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. originaire du Sénégal, cet habitant de Montargis, présent depuis le magazine Star Confidence qui nous amène à la découverte de ce qui représente le Sénégal à travers le monde. Il a eu à entre autres Pape Diouf, Marcy, euh, Absatoussi. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Abda Sall. Spécialiste de l'analyse des politiques publiques, euh, ses travaux portent sur la justice et le changement dans les politiques pénales et de sécurité. Il vient de publier aux éditions L'Armatan État, corruption et blanchiment. Euh, il nous a fait l'honneur euh, de venir spécialement de Paris pour participer au grand rendez-vous. Nous avons le plaisir de recevoir M. Stéphane Engelengele. Merci. Ancien leader de la convergence socialiste et ancien membre du PS, il est aussi fondateur depuis 2013 du Front national de salut public Moom Sa Réew. En novembre dernier, il a eu à organiser le contre-sommet de la francophonie qui se tenait à Dakar. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Malick Noël Seck. tout le monde. Bonsoir, Monsieur Seck. Bonsoir. Euh, nous vous recevons avec plaisir pour la, pour la deuxième fois sur ce plateau. Euh, nous, comme vous le savez, on est en, en mars 2015. Ça fait déjà trois ans que, le nouveau régime est, installé. Euh, comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes un ancien membre du, Parti socialiste. Vous dirigez la, la convergence socialiste. Aujourd'hui, vous êtes le Euh, le président du Front national du salut public moom sa réew comment vous appréciez vous appréciez un peu ces ces ces trois premières années euh, du mandat de monsieur Macky je dirais que je n'ai pas euh, encore vu la rupture qui avait été promise surtout en termes de bonne gouvernance euh, en termes de euh, au niveau de la justice aussi. En termes de bonne euh, gouvernance, est-ce que vous pensez qu'il n'y a, a, pas d'amélioration euh, concrètement mais Écoutez, là, il y a le rapport de l'IGE 2014 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, on ne nous a pas parlé de, du rapport de 2013. il y a eu beaucoup de malversations. voici une institution qui est, qui est fiable, qui est soi-disant autonome et, et, libre dans, son, dans ses actions. Et lorsqu'elle pointe du doigt des malversations ou euh, de la malgouvernance, elle fait un rapport et c'est dans le bureau du président de la République. Donc finalement, euh, euh, sur le rapport de 2013, il n'y a eu aucune conséquence euh, sur, euh, euh, en termes de poursuites judiciaires ou bien de... Donc, de... donc vous, vous, voulez dire qu'il n'y a, a, pas de séparation entre, entre l'exécutif et, faut... et le judiciaire Si vous dites que c'est sur la table du président, est-ce que c'est est au président Euh, d'actionner les, mais, les poursuites. Mais, mais absolument, c'est lui qui, en fait a autorité pour pouvoir euh, déclencher des, des poursuites. Bon, euh, mais il y a le clientélisme, et tout ça c'est dénoncé dans les rapports de l'IGE. Euh, il y a du clientélisme, il y a des personnes qui sont indexées, qui se retrouvent, euh, qui transhument au niveau du parti qui est au pouvoir. Et ça, c'est à dénoncer. Il faut couper le cordon ombilical qu'il a entre le l'exécutif et ce, ce d'organes qui sont l'IGE. Parce que des gens Euh, corps et âme à euh, amener de la transparence dans ce pays-là. Et, ce en fait, c'est un homme qui a tous les pouvoirs, le président de la République, et pas que Macky Sall, euh, qui font en la, la, la, le beau temps au niveau de, de la justice. Euh, lorsque nous nous sommes battus en euh, pour se débarrasser d'un régime, mais c'était aussi de pratiques, d'un système Euh, nous voulons une justice qui soit, qui soit équitable. Et aujourd'hui, euh, nous avons un, un, parti au pouvoir, comme ça a toujours été le cas euh, depuis les, nos fausses indépendances. Et il est temps aujourd'hui que, euh, que, que, la justice puisse se, se, se, libérer, que la justice puisse être juste. Euh, quand on voit un peu l'atmosphère délétère euh, qu'il qu y a actuellement à travers le pays, on, on voit qu'on qu essaie de nous mettre un peu sous tension. Je ne sais pas si c'est une vraie tension ou bien c'est une, tension qui est créée parce que, soi-disant, on doit avoir un, verdict d'ici quelques jours. Euh, est-ce que vous ne pensez pas que vous, politiques, parce que vous, êtes, vous faites quand même partie des politiques, vous ne prenez pas en otage, euh, vous prenez tout un pays en otage, euh, comme quoi, soi-disant, nous, devrons tous, être, je veux dire, impliqués ou nous devrions tous être, avoir les yeux fixés sur, sur, Euh, n'intéresse pas à beaucoup de monde en, dehors de, de, du Parti euh, démocratique sénégalais et peut-être de l'APR. Oui, c'est vrai, même en venant, j'ai vu beaucoup de, de gendarmes, de Tout GMI dans, dans, dans, les, dans, les, rues. Euh, si jamais les gens sont focalisés sur ces histoires c'est à eux qu'il faut le demander. Je veux dire, chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre les, les péripéties politiques du, du, PDS ou d'un autre parti. le Sénégal est un pays qui est très politique, les gens s'y intéressent beaucoup. Euh, c'est, c'est, et la politique aujourd'hui, c'est devenu un peu du folklore. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est des caravanes, c'est, du, c'est, de, c'est, de la fête. Et puis, euh, c'est vrai que ça prend euh, euh en otage euh, les, les, Sénégalais, je, ça je, je vous l'accorde. ce qu'il faudrait, c'est que... parce qu'en fait, on ne va pas au fond du, du problème. Mmh. Le, nous, nous dénonçons toujours le fait que nous, les Sénégalais, ne sommes pas assez conscients en fait des, des, des, enjeux de notre époque et des défis que nous avons à mener. Nous sommes euh, au Sénégal un pays qui n'a aucune souveraineté. Euh, nous ne battons pas notre propre monnaie. Euh, nous, avons, euh, nous vendons toutes nos terres à des, à des puissances étrangères. Euh, demain, euh, ces, ces gens-là peuvent venir et mettre un drapeau dans le Wallo en disant non, toutes ces terres-là nous appartiennent, mmh. on va appeler l'armée française pour défendre nos terres, mmh. etc. C'est-à-dire etc. qu'il y a des drames y a, qui, qui, qui, qui viennent et on n'en parle pas, on n'en discute pas et on nous tient en otage avec des, des querelles politiciennes. Tout à fait. Bon, ça c'est dommage, mais c'est entretenu aussi par le, le, spectateur. Mm, tout à fait, parce que euh, comme vous avez vu, euh, euh, on a parlé d'une cour de, rép de, répression de l'enregistrement illicite euh, qui poursuit euh, actuellement principalement qu'une seule personne. C'est vrai qu'il y a des co-accusés, mais on n'en <laughs> parle pas beaucoup. On parle principalement de, de, de M. Wad. Euh, est-ce que vous pensez que, que, que est-ce qu'on est sorti de, de, par exemple, un peu de ce qu'on peut appeler une impunité, que les gens continuent à, à, à, faire, à faire certaines choses sans pour autant euh, être inquiétés euh, On en reparlera tout à l'heure peut-être avec le, le, livre de, de, de Stéphane Engel-Engele. Euh, il, en a, il en a un peu parlé parce que dans nos pays, c'est peut-être pas seulement en Afrique, mais surtout dans nos pays sous-développés, on a, on a peut-être ce problème. Le, il y a une certaine impunité, et voilà, et du moment euh, qu'on qu qu qu transhume, euh, qu'on retourne sa veste, euh, on n'est pas inquiété. Oui, mais c'est-à-dire que cette justice-là, aujourd'hui, est devenue, est devenue une vraie mascarade. Euh, nous, évidemment, on s'était battu à l'époque pour que l'on audite euh, euh, ce qui était le, le régime précédent, que ceux qui, avaient, qui étaient reconnus coupables d'avoir détourné de l'argent puissent être poursuivis et punis. Mais on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures. même la, la, la créer même pose un problème juridique. Euh, on leur donne beaucoup d'argent pour faire des enquêtes. Et en fait, qu'est-ce que révèle ce procès C'est que notre justice, elle est, elle est incompétente. Hein non seulement elle n'est elle est, elle est pas, elle a, elle pas autonome, mais euh, avec cette histoire-là, elle nous a prouvé qu'elle était incompétente parce qu'on ne peut pas te donner des billets d'avion, tu vas chercher dans, dans le monde entier des, de l'argent que tu, que tu ne trouves pas. Donc finalement, qu'est-ce que, à, quoi, à quoi vous servez euh, Et l'autre chose, c'est le, le, deux poids, deux mesures. Euh, qui, qui, qui a, ça, ça, ça, crée un problème d'éthique, de, de, morale, parce que quand vous avez euh, le président de la République qui lui-même reconnaît avoir touché de l'argent du président Ouad, c'est de l'argent, même si c'est légal, C est, c est, ce n'est pas de l'argent qui est légitime. Mmh. Euh, est-ce que c'est légal, ça bon, bon, bon déjà, est-ce que c'est est -ce, -ce légal Mais bon, mmh. si on dit que c'est hmm. pris sur les fonds spéciaux, euh, etc., et que on ne peut pas euh, auditer en tout mmh. cas la, la, caisse noire du, du, président de la République. Bon, c'est peut-être légal, mais ça pose un, problème euh, de moralité. Euh, les anciens premiers ministres ouvertement, euh, oui, Watt nous donnait de l'argent,

Euh, vous imaginez un Premier ministre qui vient dans votre bureau, non, je vous donne un milliard ou deux milliards au nom de quoi mm. Et ce n'est, pas normal. Euh, et pendant le même temps, vous voulez poursuivre d'autres personnes euh, pour, euh, soi-disant, enrichissement euh, illicite. Donc si le président lui-même s'est enrichi de manière illicite, comment peut-il, peut-il être crédible avec la Cour de répression de la justice L'IGE avait indexé euh, Awanjai, sur des questions de surfacturation de, de cuillères. Et dans le même temps, quelque temps après, elle se retrouve à l'APR. Et elle-même dit, mais moi je n'ai pas été demandeuse, je ne suis pas demandeuse, de, c'est eux qui sont venus me chercher. Qu'est-ce que ça cache Qu'est-ce que ça cache Donc là, y a, ça, ça, pose un, un, réel problème. Si on indexe une personne pour avoir volé l'argent des Sénégalais et que toi, président de la République, tu la couvres, c'est-à-dire que le président de la République couvre des voleurs. Donc qui est-il, ce président Quel genre d'homme est, quel genre d'homme est-il s'il arrive à cautionner des voleurs dans son, dans son parti, mmh. qui sont indexés par des institutions et des organismes de, de, de, de, de l'État C'est ça la question. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça a toujours été le cas. Je ne sais pas ce qu'on pense à euh, ça. En je pense que de nos défis euh, dans nos États, c'est que euh, les personnes au pouvoir, dans notre cas donc le président, sont aussi responsables de faire en sorte, parce que le problème réel de notre, de notre système, c'est qu'une un, personne a trop de pouvoir et dicte finalement le, destin d'un pays pendant le temps qu'il est là. Et c'est que c'est ça notre problème et de diminuer le pouvoir en fait, de, de, revoir la Constitution. Le Conseil constitutionnel devrait changer la Constitution pour faire en sorte que le président n'ait pas autant de pouvoir qu'il a et qu'on puisse avoir un contre-pouvoir réel, parce qu'on n'en a pas. Il n'y a pas de contre-pouvoir. On peut avoir une opposition, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas d'opposition. enfin, enfin, y a une opposition virtuelle. virtuelle. Elle existe juste dans les mots, mhm. les, contre pouvoirs que sont censés être l'opposition euh, la presse, euh, ne peuvent pas vraiment exercer leurs fonctions. Mhm. Et pour que cela soit le cas, il faut qu'il y ait une volonté politique et donc une volonté de la personne au pouvoir de changer cet état de fait. Ce qui fait qu'en en fait, on se demande à quel moment dans notre histoire cet acte se posera. Il faudra quelqu'un qui est là pour changer la, la, le cours de notre... a, on avait mais il faut aussi, une pression populaire. Parce que euh, le, le, le, peuple aussi est responsable de cet état de fait. Cette... Et il est co cest c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours accuser euh, le président de la République. Si tu arrives, tu es président de la République, que tu as tous les pouvoirs. Exactement. Mmh. Pourquoi tu vas changer la donne oui. puisque personne ne, s'en, ne, ne descend dans la rue. Mais le, la, les, les, les, personnes descendent dans la rue. Par exemple, ça s'est produit chez nous, ils sont descendus dans la rue quand on allait un peu trop loin dans ce qu'on voulait faire, ce que voulait mmh. faire le régime précédent. Mm -hmm. Après, il faut quand même un niveau euh, de, de, de, de, critique et un niveau de compréhension qui permet de savoir que, ah, en fait, notre problème, c'est que le président n'a pas trop de pouvoir, c'est qu'il faut changer notre système, c'est que... Et donc là vient finalement... Euh... Mais, peut-être comme le dit si, si le, peuple, le peuple se complaint, se, se, se, complaît dans ça, moi je me dis que ouais. Euh, et, euh, on ne peut faut, pas gouverner... Il ne faut, pas, faut, pas, faut sont illettrés aujourd'hui. Non, je veux dire, être illettré, ça ne veut pas dire ne pas être intelligent, ça ne veut pas dire ne oui, pas oui, comprendre, oui, parce qu'on parle elle, beaucoup Wolof à travers la presse, on parle beaucoup... Mais, et, et, et, les gens, et les euh, gens non. comprennent, les gens sont intelligents. Je, je suis d'accord. Mais comme vous dites, peut-être qu'ils se disent que, euh, que d'être dans un pays avec un président de la République qui a beaucoup de pouvoir, je pense que finalement ça dérange pas trop les Sénégalais. Et ouais, que les Sénégalais, une fois que le, vous, poussez le bouchon, vous poussez le bouchon un peu trop loin, comme a voulu le faire l'ancien président, là, ils peuvent sortir dans la rue. Mais tant que c'est un président, parce que nous, on dit toujours Ngourdi. Donc on a toujours cet, cet esprit de royauté, cet esprit de roi. Donc euh, voilà, je pense que c'est resté un peu dans notre inconscient, en fait.

Euh, à un travail, qui leur permettent d'avoir le temps de se préoccuper de ce, de, de ce genre de, de questions. Euh, l'autre chose, c'est que euh, on se bat des fois pour des, des problèmes qui sont pour moi secondaires. Je vous donne un exemple. Au, au, au Niger, on a vu euh, les populations qui sont sorties dans, pendant l'affaire Charlie. Mmh. Il, y a mm. eu des, il y a eu des morts. Alors vous, Nigériens, vous sortez, vous vous battez, vous vous entretuez parce que vous êtes contre Charlie. Et pendant le même temps, Areva euh, euh, prend votre uranium. Et vous euh, euh, la SDE, c'est Bouygues. C'est une entreprise française qui prend notre eau qui euh, la donner. On leur paye 50 milliards par an. de faire, je crois, 400, 218 millions 218 milliards de, de, de, de bénéfices. bénéfices. Ça part où Ça ne reste pas n'est-ce pas euh, Notre président de la République est un, un, un géologue qui a travaillé à, à Petrosen, qui connaît très bien ces questions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de, d'accaparer, en silence en tout cas, euh, euh, euh, ce, ce business-là qui est le, euh, la découverte du pétrole. Donc qu'est-ce qui nous appartient finalement On a un seul port, on sait ce que rapporte un port à une économie, mais on le brade. Donc euh, aujourd'hui, il faut que les Sénégalais comprennent

C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Mais c'est ça le drame, parce qu'on voit que les gens l'acceptent. Oh, Parfois, vous, vous voulez vous battre euh, pour des, pour des gens qui, qui trouvent les choses normales. Oui, c'est-à-dire que, que, nous, que... ce que nous, en, nous, essayons de faire avec euh, euh Momsereo, c'est de, de, de, montrer aux populations, de, de, faire le lien, la connexion entre la corruption, hein, cette, cette, gabégie, euh, euh, notre manque de souveraineté et leur état de, de pauvreté. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans, dans les régions et je parlais avec des agriculteurs et je leur expliquais, mais euh, ils me disent non, nous on, on, on cultive trois mois dans l'année. Je leur dis mais pourquoi tu ne cultives pas plus longtemps euh, il dit non, parce que nous, on dépend de, de, de, la pluie, etc. Je lui dis oui, mais il faut pomper, si vous pompez de l'eau, parce que les géologues disent qu'il y a beaucoup d'eau dans le oui, sous-sol au Sénégal. Clair, si vous pompez de l'eau, mmh. le gars me dit, l'agriculteur me dit, mais euh, si on pompe l'eau, il nous faut de l'essence et donc on, ça ne sera pas rentable. Je lui dis mais il y a des pompes solaires. Mmh. Avec les pompes solaires, tu peux arroser ton, ton, ton champ toute l'année et tu, tu ne payeras rien. Si ton fisc en Italie ou euh, à Washington peut aussi t'envoyer des plaques solaires chez toi, ce qui fait que ce que tu dépenses euh, euh, à la Sénélec, eh ben, tu vas le garder dans ta poche et ça va euh, servir à autre chose. Hmm. Et il me demande, mais pourquoi cela n'est pas possible Je lui dis, parce qu'il y a une pression notamment de, de, de, de l'oligarchie euh, euh, française qui demande à chaque candidat ne touchez pas à nos intérêts c'est-à-dire nous on veut vendre notre pétrole on veut vendre notre essence via la SAR et Total si vous voulez des pompes euh, n'investissez pas dans le solaire donc c'est la, c'est la croix et la bannière pour pouvoir importer ici au Sénégal des, des, des plaques solaires alors que nous avons du soleil nous avons du vent <laughs> l'éolienne etc et ça permettrait à l'agriculture de de de de faire un boom euh, euh, magnifique mm. mais non c'est c'est vraiment du du, du n'importe quoi donc voici des des quand l'agriculteur comprend que euh, euh, en faisant ça il peut vraiment gagner de l'argent là il a appelé tous les tous ses voisins il a dit écoutez venez écouter ce qu'il dit donc il y, y a une pression une, une connivence entre ces entreprises françaises et euh, ces sous-préfets qui mmh. servent de président euh, mmh. ici en Afrique et qui mm. fait que nous ne pouvons pas, nous pouvons pas avancer. Donc c'est ça qu'il faut faire en, permanence, c'est faire le lien entre la souffrance des populations, euh, pourquoi les femmes accouchent sur des charrettes en, 2000, en 2013, pourquoi nous n'avons pas d'électricité et le comportement du président de la République et le comportement des députés qui ne proposent jamais de euh, euh, euh, de la justice qui, qui punit ceux qui sont contre le pouvoir et qui laisse passer les

euh, il ne faut pas non plus rentrer dans un populisme parce que ça non plus, <laughs> ce n'est pas, pas ce pourquoi on est là est, et, est, ne laisserait pas l'État travailler non plus parce qu'il faut une certaine patience. Du coup, il faut comprendre les mécanismes et la durée dans le temps et que ce n'est pas parce que tu le veux aujourd'hui que c'est possible aujourd'hui. Mais euh, ce travail d'éducation, je pense, et, le, et la responsabilité aussi de l'opposition, qui, au lieu d'éduquer la population, alors faire comprendre, voilà ce que vous avez le droit de demander, parce que aussi, quand eux viendront au pouvoir, ne voudront pas que la population sache ce à quoi elle a droit, ne leur dit pas forcément. C'est aussi, cest lieu d'être tout le temps en train de parler de ce que Macky fait, ce que Ablaï fait ou fait pas, mieux vaut dire à la population, voilà ce que vous avez le droit d'attendre, voilà vous peut-être aurez la responsabilité dans l'avenir, c'est de se tourner de parler au peuple au lieu de parler tout le temps à l'État qui de toute façon <laughs> n'a aucun intérêt à vous écouter. Pourquoi continuer dans ce cas, quand on est dans l'opposition dans ce pays, à toujours parler vers les personnes qui de toute façon ne vous écoutent pas et parler aux personnes qui sont vraiment euh, ceux pour qui vous êtes censés travailler mm-hmm. a, il y a une qui fait que opposition euh, ils sont tous en fait dans le, dans le même sac. Ouais. Euh, on, on, a livré le Sénégal à l'anarchie des coalitions, euh, qui est symptomatique en fait d'un de, de, la perte d'idéologie dans les partis politiques. Ouais. Euh, il n'y a plus de formation chez les militants. Euh, on, on, on, se coalise, on se met ensemble pour être sûr de gagner, pour arriver au pouvoir. Mais une fois arrivé au pouvoir, on ne peut pas changer les choses parce qu'en fait, nous sommes tenus par le FMI, la Banque mondiale et l'Élysée. C'est ça le, le, le, réel problème. Nous, ne battons pas notre propre monnaie. Le franc CFA est imprimé à Chamelière. C'est même pas imprimé en, en Afrique. à, la, mais... à, la, à, la, Banque centrale des États, à la BCAO, il y a deux administrateurs qui sont français. Et lorsqu'une décision importante doit passer, s'ils ne sont pas d'accord, cette décision-là ne, passe pas. Donc si jamais on ne bat pas notre propre monnaie, si nous avons, nous ne sommes de défendre nos militairement et que nous devons dépendre de l'armée française pour nous défendre. Mais nous ne sommes pas un État. Euh, euh, l'opposition aujourd'hui, elle est là, mais euh, euh elle n'existe pas. Euh, tous ceux qui sont censés s'opposer au régime de Macky Sall sont avec lui. Ça n'a pas de sens. Des libéraux, des communistes, des socialistes qui se mettent tous ensemble sur le dos du peuple pour faire quoi finalement Il ne faut rien. Oui, euh, je, je suis d'accord avec, avec vous que oui, on, a, on manque d'indépendance, mais il y a un degré d'indépendance qui nous est possible quand même. Euh, euh le, le, FMI ne nous empêche pas de construire des hôpitaux, ne nous empêche pas de, de, de, de construire de bonnes écoles, ne nous, empêche pas de faire ces choses-là. Rien n'oblige nos, gouvernants à détourner cet argent non plus. Il nous impose, autre chose. des dépenses. et, ce qui implique qu'on y a des choses sur lesquelles on peut agir. On ne peut pas investir sur

mais c'est moi qui décide. Euh, c'est moi qui décide. Il y a un, oui, un niveau d'indépendance quand même, c'est à Kagame de décider ça. Au Sénégal, on, fait ce qu'on nous dicte. Oui, mais c'est pour, pour que je dis que ce n'est pas seulement parce que euh, le, le, FMI nous impose ou que notre monnaie, c'est aussi une question de volonté mais nous avons mais, mais nous avons volonté des... individuelle on peut quand on est une victime on n'a pas de mais nous sommes dirigés par des sous-préfets qui sont à la solde de l'Élysée ils n'ont aucune volonté ils sont assis dans des fauteuils euh, je pas euh, cette volonté-là mmh. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Seck. Je vous ai écouté attentivement. Donc, euh, vous représentez le Front National. J'espère que c'est différent du Front National, je connais. <laughs> Donc euh, j'ai entendu, je, je, le parallèle pour le Mont Front National, par rapport donc euh, les mêmes discours qu'ils tiennent sur euh, euh le nationalisme, sur euh, l'Europe, quand ça il s'agit du Front National français. Ici, donc j'ai le même que rien ne va. Ici, donc le Front National que dans votre discours, euh, rien ne va, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de poursuite judiciaire, il euh, y a de l'illettrisme, euh, la CRI n'est pas bon, on n'a pas de monnaie, on n'a pas de souveraineté, on a, a de l'impunité. En fin de compte, il n'y a rien qui est bien. Donc j'ai entendu aussi que vous étiez euh, responsable, de convergence socialiste, c'est ça Il a été responsable. Ah bon, responsable, est géré par les socialistes. Mhm. Je pense qu'il y a un héritage, si vous êtes socialiste, de prendre aussi l'héritage. Donc, euh, j'ai bien entendu aussi que vous êtes sorti du Parti socialiste pour Donc, avoir... exclu. Euh, c'est Donc, euh, pour avoir le Front National. Ça veut dire que ah même si vous êtes, si vous êtes exclu, avez toujours le cœur socialiste, vous êtes sorti malgré vous. Donc ça veut dire que donc, la responsabilité des socialistes dans ce pays depuis l'indépendance, donc qui ont, qui ont dirigé euh, plusieurs décennies ce pays, vous devez aussi prendre en compte cet héritage. À prendre en compte donc cet héritage, ça veut dire quand on, concept, quand accepte après 12 ans de régime libéral que rien ne va, ça veut dire que donc on va prendre ce que donc on épouse dans son cœur, qui ont dirigé les pays, plus l'aspect, donc comment ça s'appelle, du régime libéral et dire que ça ne va pas. Donc ça nous fait depuis 60 jusqu'à plus de 40 ans. Donc à partir de là, quand on constate que rien ne va, ça veut dire que euh, les personnes avec lesquelles je partageais les idées n'ont rien fait dans ce pays. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que vous, vous le constatez que lorsque vous êtes sorti donc, euh, de ce cercle. Et ce que moi, personnellement, en tant que... Euh, je suis dans la politique, mais la politique du développement. Je ne suis pas dans les partis politiques. Je suis citoyen, je suis patriote, je ne suis dans aucun parti politique. je suis de la société civile, mais le mot société civile est entre guillemets parce que c'est galvaudé. Donc je suis patriote comme vous, et ce que je constate, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas de rupture. Pour moi, il y a une rupture, dans la mesure où la façon dont les socialistes ont géré ce pays, avec la gabégie, avec euh, ce que vous disiez donc euh, euh, tout à l'heure, euh, l'impunité, lorsque le régime libéral est venu, jusqu'en 2005, Jusqu'en 2005, il y avait un semblant, donc, parce qu'ils ont retrouvé, peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient jamais géré un pays, donc euh, ils essaient donc de faire par rapport à l'extérieur pour avoir des ressources pour travailler. À partir de 2005 jusqu'en 2012, donc euh, c'est catastrophe. C'est catastrophe dans la mesure où c'est lorsque on a retiré la dette du PPTE, l'initiative PPTE, que le Sénégal est sorti donc on leur a enlevé ces dettes, et que maintenant, ces dettes enlevées, on leur demande donc de ces dettes qu'ils avaient, de le, de, placer au niveau du pays, que là, les affaires sont venus. Des, des personnes qui sont dans les partis politiques euh, sont venus, ils se sont mis comme euh, fabricants de routes, d'autres des trucs, on leur donne des marchés à tout va. Qu'à partir de là, pour moi, le Sénégal, la situation actuelle, ce sont les politiques. Ce sont les politiques tout le problème qui se pose, c'est ceux qui font la politique. Parce que tous ceux qui font la politique aujourd'hui, c'est les personnes qui ont raté leur coche au niveau professionnel, ce sont les personnes qui se retrouvent sur le carreau, et leur seconde vie, maintenant, ils vont adhérer dans les masses politiques. Et tout le monde fait des affaires dans les, dans les, dans les partis politiques. Que ce soit les femmes qui vont applaudir qu'on paye francs pour applaudir, que ce soit donc euh, les gens qui, sont, qui ont raté leur vocation professionnelle qui

Moi, je suis plus euh, euh, Mamadou Dia que Senghor. Euh, je pense qu'en 1960, on nous a imposé euh, la décolonisation, que la décolonisation est une œuvre française, euh, n'est pas une œuvre africaine. L'indépendance est pour l'Algérie, qui a perdu un million de personnes, c'est pour l'Indochine, mais pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous ces autres pays, il n'y a pas d'indépendance. Nous avons été décolonisés, ça a été créé par De Gaulle et Focard. n'est-ce pas Et ils ont imposé leurs hommes, dont Senghor. Donc je ne suis pas, moi, euh, en train de, euh, de, de défendre ou euh, de, de, jeter la, la, la pierre à, à, tel régime ou à un autre. Euh, ce qu'a fait le Parti Socialiste, moi j'ai intégré la politique en 2005, le Parti Socialiste avait déjà quitté euh, le pouvoir. Euh, je ne suis pas comptable de ce qu'ils ont pu faire pendant 40 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un, un, parti, et ça je l'ai compris après, c'est-à-dire que, que c'était un parti qui était en fait, euh, lorsqu'il était au pouvoir, à la solde, comme les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, à la solde de la, la, de, de la France. Euh, ça, c'est clair et net. Et ça, on ne le renie pas. Et on a débattu. Et quand nous, notre nationalisme, euh, notre panafricanisme euh, n'est pas né lorsque nous, sommes, euh, nous avons été exclus du Parti socialiste, je vous rappelle qu'en 2011, euh, j'étais encore au Parti Socialiste, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai écrit, j'ai défendu euh, Bagbo, euh, je revendique mon amitié avec euh, Charles Blégoudé. Et ça, j'étais euh, au Parti Socialiste à une époque où tout le monde euh, était contre Bagbo. euh, au, au, Sénégal. L'opinion publique était euh, complètement contre. Le secrétaire général Tanordia même avait fait une sortie pour reconnaître euh, euh, la victoire du, du, de, de, de, Gbagbo et il s'en est pris euh, euh, plein la, la, la, figure, notamment par des membres du, du Parti Socialiste. Et à ce moment-là, nous, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons pris notre avion, nous avons été à Abidjan en février 2011, c'est-à-dire quelques semaines avant les, les, les, les bombardements. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit Sarkozy qui nous explique qu'il a installé, il a enlevé Gbagbo pour installer Ouattara et que, euh, comme euh, une lettre à la poste, qu'il ne s'est rien passé. Donc l'histoire finalement nous a donné, euh, nous a donné raison. Euh, euh, donc il n'y a pas de... Euh, je ne suis pas là en train de, de, de, de nous cacher derrière le fait qu'ils qu aient, qu aient dirigé le pays pendant 40 ans, mais pour moi ils ne l'ont pas bien dirigé. même si jamais j'étais dans ce parti-là, nous on y a été en pensant que euh, c'était le parti qui venait de tomber, il fallait faire chuter Wad, et, et c'était le parti pour moi, le challenger, qui, qui avait le plus de chances de, de, de, faire tomber euh, euh le, le, régime de Wad. Et profondément, moi je suis socialiste, maintenant le socialiste n'appartient pas au parti socialiste. D'accord euh, Quand je parle d'illettrisme, c'est un fléau. Exact. Je ne suis, pas en train de, je suis pas en train de dire que les populations sont des cancres. Il y a des gens qui apprennent l'arabe, etc. Bon, euh, je n'ai je, je n'ai encore jamais vu deux Sénégalais qui parlent entre eux en arabe. Euh, euh, à Dakar, oui. non, non, non, non, non. Il y en a beaucoup. Moi, moi, beaucoup de gens qui disent il y a, y a apprendre l'arabe et à, à apprendre le, beaucoup, le Coran. Hein. Bon, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire la différence entre le bien et le mal. Je suis d'accord avec vous. L'ignorance n'est pas une excuse, mais lorsque vous avez une formation que vous avez été sur les bancs, que ce soit l'arabe ou le Comme français. Descartes, le bon sens est la chose au monde la, la mieux qui, Qui vous, permet d'accéder à la connaissance, qui vous permet d'avoir un emploi, qui vous donne euh, accès à un prêt pour avoir une maison, aux soins, etc. Mais écoutez, vous êtes plus avantagé que celui qui n'a pas eu ce, cursus-là. Et d'après les rapports, il y a euh, euh près 72% de nos femmes sont euh, des illettrées. Vous disiez que le, le, le, mais nous aussi, de faire de la politique autrement. C'est pour euh, euh, avec des femmes au niveau de notre parti, d'accord Et nous Et ça, c'est quoi C'est du savon qu'elles fabriquent avec des, des, des, des plantes, mmh. du bouille, du henné, etc., qui soignent la donc là, Montserrat est en train de travailler sur ce projet-là avec des femmes, quel que soit le, leur parti d'ailleurs, pour fabriquer ce savon-là. On cherche des étiquettes. Vous qui êtes de la société civile, on a du mal, nous, à avoir des, étiquettes. Mais nous sommes dans un projet pour justement permettre à ces femmes-là d'être de, de, de, autonomes. Euh, et ça, les partis politiques ne le, ne le, font pas. Nous, nos femmes ne sont pas là pour applaudir. Nos jeunes filles euh, euh, militent, elles, sont dans les universités pour sensibiliser les, les, les personnes sur le harcèlement a Euh, à la fac, des professeurs qui, pour te donner ta thèse, euh, te demandent de te, de te coucher sur le divan, etc. nous, avons, essayons vraiment d'impliquer, nous, nos, nos, nos, militantes, dans des combats. Euh, qui soient complètement différents de, de l'applaudissement. La société civile, j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est souvent neutre dans, ce qui se passe. Elles ne font pas de politique. Aujourd'hui, il faut que l'on choisisse notre camp. Soit on va vers la liberté, euh, on peut pas c'est comme si vous êtes dans un dans un euh, au temps de l'esclavage mmh. vous avez des esclaves qui sont là qui sont euh, euh qui se battent pour leur euh, leur liberté d'autres qui sont qui sont qui, qui, qui, qui sont bien mmh. et puis il y en a une partie qui dit ah non nous on est neutre mais pendant ce temps il y a un maître qui qui tient le fouet nous sommes aujourd'hui euh, dépendants de l'extérieur. Nous, avons une, nous, sommes, dépendants de, de, de, de, la politique euh, française. Notre, notre argent, notre monnaie, euh, nous, ne pouvons pas, qui n'a pas de souveraineté monétaire, n'a pas de souveraineté économique. Notre, 50% de nos devises sont logées à la Banque de France. Que vous Donc, proposez ce que je propose. Mm. Mais moi, je, nous proposons déjà de, recouvrer la gestion de nos, réserves de de supprimer la convertibilité du, du franc CFA. Mhm. Hein, n'est-ce pas Avec quelles euh, conséquences mais, mais, Quelles conséquences De quoi vous parlez Ça nous permettra au moins d'avoir une coopération euh, monétaire entre les mhm. États. Essayer d'avoir euh, notre propre euh, monnaie. voilà, une coopération qui nous permettra d'avoir une stabilité de notre, de notre monnaie et rapprocher nos, nos différentes économies. Et je crois que cette audace-là, qui manque justement à nos, à nos, à nos dirigeants. Parce que c'est ça qui nous permettra en tout cas de, de, de, placer notre argent sur les mm. marchés financiers, etc. Mais si vous, vous êtes, entre, euh, euh vous êtes euh, euh votre, euh, le dollar, il, on exporte, quand, quand, quand, on importe ou qu'on exporte, les prix sont libellés en dollars. Mhm. Vous, votre argent est arrimé à l'euro. Mhm. Le, le, dollar chute. Mhm. Il vous faut plus de CFA pour avoir de dollars. Donc, c'est presque une dépréciation monétaire, ce que j'appelle, moi, une dévaluation déguisée que nous subissons euh, au, au, aujourd'hui. Donc, nous n'avons aucune maîtrise de ça. Et, de la valeur de notre monnaie, nous n'en décidons pas. Non. Si vous regardez autour de vous, des pays africains autour du Sénégal, qui ont leur monnaie, quelle est donc leur situation économique parce que c'est catastrophique. La monnaie, c'est quelque chose qui a une base qui est la fiducia, la confiance. Oui, c'est ça la monnaie. Vous allez prendre le, le, la Gambie, prenez Sierra Leone, tous ceux qui ont leur monnaie. Est-ce qu'il y a un pays autour de nous avec sa monnaie qui a une économie solide Le Ghana Le Ghana Merci. Le Ghana, parce qu'ils sont le, proches du Nigeria Le Ghana, le, le Nigeria, mm -hmm. euh, euh tous, ces, pays. Et c'est une question aussi de dignité nationale. Euh, euh, c'est-à-dire que c'est comme si on disait que nous, nègres, nous ne sommes pas suffisamment honnêtes, nous ne sommes pas suffisamment compétents pour gérer nous-mêmes notre propre monnaie. Nous avons des monétaristes, nous avons des... des, Donc, c'est une question quand même. C'est une, question de dignité. Une nation, c'est quoi C'est un territoire hein, qu'on est capable de défendre, c'est une monnaie que l'on mm. bat soi-même. Je suis mm. d'accord. Tant que nous n'avons pas ça, avec vous, mais, hein. mais, mais, on peut. Je suis d'accord avec rien. vous, mais c'est-à-dire que c'est un slogan qui sort tout le temps, partout que j'entends, sans que les personnes ne soient des spécialistes de savoir comment on sort d'un système pour mettre un nouveau système. C'est pourquoi je disais, donc j'en entends pas. Ça, ça, une, une, voilà, exactement. Une fois qu'on a la volonté politique, je pense que les, les spécialistes C'est la fiducia. Sont là. Mm. Cette en Non, la fiducia. <laughs> Moi, je ne peux pas mettre la confiance. Parce que la confiance, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Mais la confiance, la confiance, c'est l'environnement international. Et économique. ce n'est pas seulement les personnes au niveau mm-hmm. local. Mm-hmm. C'est L'international, parce qu'on est dans un monde global. Non, pas du tout. Je mm-hmm. dis que de Vous pensez garder ce que vous proposez Ce que je propose. civile propose pour que nous puissions avoir une souveraineté civile, comme vous monétaire la société civile n'est pas neutre. Mhm. Je ne suis pas neutre. Lorsque je raisonne, je fais de la politique. Mais je ne fais pas de politique politicienne. Je ne suis pas neutre. Mes positions sont politiques. Elles sont politiques, mais elles ne sont pas politiciennes. On, je ne suis pas du tout neutre. Je ne suis pas neutre du tout. Donc euh, j'essaie d'être réaliste dans les choix réaliste dans les propositions. Et, et le réalisme, c'est le statu quo. Non, non, pas, du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas le statu quo. C'est-à-dire mm. que quand il faut sortir, il faut analyser mm. d'abord les scénarios. des conséquences que ça peut avoir. Parce qu'on ne sort pas d'une monnaie pour taper comme, euh, comme on sort d'une porte pour avoir, comme vous avez fait, a, sortir d'un parti mais, mais pour créer le, le National. non, ça ne pas comme ça. L'économie est beaucoup plus complexe. et ça prend beaucoup plus de temps. Nous ne disons pas qu'il faut... qu'on a les hommes pour mettre en place un plan Sénégal indépendant, mmh. un plan Afrique indépendant. Ah, un, un, un, Par contre, il faut que ce soit Afrique. Exactement. Nous avons les compétences pour mettre en, en, en place une stratégie qui nous permette mm. euh, étape par étape dans le de, temps, mais il faut qu'il y la volonté. L'objectif, l'objectif, c'est de maîtriser notre propre monnaie. Ça me rappelle un l'indépendance euh, immédiate mais pas immédiatement. <laughs> là aussi c'est la mais pas tout de suite. Euh, je, je, sais que, que le, le, débat risque peut-être de durer un peu parce que c'est un sujet très très passionnant. Euh, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Peut-être juste un mot. Euh, juste un mot, on en parlait tout à l'heure au début avec l'atmosphère qu'il y a, avec, avec peut-être euh, le, le, le, délibéré du procès. Qu'est-ce que vous avez comme euh, en tant que, en tant que euh, personnalités politiques. Euh, quel, quel, message vous avez à, à l'endroit de vos militants, à l'endroit de tous les jeunes euh, par rapport à, à, ce qui se passe et ce qui devrait se passer j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai que euh, recrute des nervis pour euh, faire un peu, le, le, le, boxon dans notre, dans notre ville, dans notre pays. Ça, je crois que c'est pas bon. dire aussi, rappeler à, à une partie de la jeunesse, euh, surtout ceux qui sont recrutés pour commettre des, ce genre d'action, que la dernière fois où le PDS a recruté des, des personnes pour euh, euh, faire de la violence, ça s'est terminé euh, dans un drame, il y a eu un mort. Euh, ils avaient envoyé des, des nervis à la mairie de Sacré-Cœur, Mermoz, et de, de, rappeler à ces jeunes de ne pas se faire euh, avoir, de ne pas se faire embrigader. Euh, on a besoin de paix et et, et de, de, développement aujourd'hui. Et c'est ah, ce aussi des peines euh, qu'ont les, euh, les, les, jeunes de Koloban, des peines très sévères. On sait très, pas, très sévères, hein, très, très sévères. Et ça, ça aussi, euh, euh, moi, ça m'avait beaucoup peiné parce que euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de morts durant ce, de ce combat-là. Euh, que j'ai l'impression que ce sont les agneaux du, les agneaux du sacrifice. Euh, ils n'ont pas, je crois qu'ils n'ont pas pu prouver que c'était réellement ces, jeunes-là qui avaient euh, tué ce, policier-là. Mais en tout cas, il faut être très vigilant. Aujourd'hui, le combat euh, de, de, la jeunesse ne doit pas être un combat pour libérer quelqu'un ou pour, un parti ou pour ceci. Non, aujourd'hui nous devons nous battre pour notre liberté, nous devons nous battre pour notre souveraineté. Il y en a marre d'être que, notre destin soit pris en, main par, mmh. François Hollande et, Mm. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, l'Europe, euh, la, la, France a, a, complètement échoué. Ils sont en pleine crise. Euh, ils se sont mis, euh, ils se sont couchés devant les, États-Unis. Et nous, on continue de, de suivre la, la, France comme des comme des larbins. Et ça, c'est mm. la faute de nos dirigeants. Mm. Il faut aujourd'hui que nous nous battons pour notre liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter et comprendre que nous sommes un pays qui n'est pas indépendant et aller se, se quereller pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a deux camps aujourd'hui. On est, on est pour le système qui nous, euh, qui nous suce le sang ou on veut s'en sortir. Par quels moyens Mais il faut qu'on choisisse notre camp. Mm. Et il n'y a pas de place à la neutralité aujourd'hui. Euh, monsieur, euh, je ne sais pas, Engelengue, euh, euh si, vous avez peut-être euh, votre opinion par rapport à ce qui s'est dit un peu sur l'actualité nationale Euh, je souhaiterais d'abord revenir sur euh, quelques éléments du débat précédent <clears throat> pour dire que, à mon sens, le véritable problème, c'est de définir euh, euh, l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État au Sénégal aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que l'État en Afrique Cet État-là est-il aujourd'hui capable de conduire des politiques publiques en faveur du développement, en faveur de l'émergence hein, C'est la promesse. Euh, mmh Euh, c'est la promesse de, tout, de, tous nos hommes politiques, euh, l'État qui euh, structure les sociétés africaines aujourd'hui, est-il capable de conduire les politiques qui sont promises Peut-on, avec cet État, sortir de la situation dans laquelle on est L'État dont on parle, c'est un État néopatrimonial qui est hérité de l'indépendance, qui est mm. hérité de, de l'indépendance et des conséquences de la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a une confusion des genres euh, mmh. systématique entre celui qui occupe le poste, poste de président de la République, le poste de ministre, et euh, euh, les, les, avantages qui sont liés à l'occupation de ce poste dans des conditions où il n'y a pas d'autonomisation de l'institution. Mmh. L'État est faible, absolument faible. Il a des capacités qui sont nulles, réduites à la, à la, à la, à la proportions congrues. Mmh. Cet État est totalement incapable de conduire des Et politiques. Et qui a hérité de dettes. Absolument. Donc cet État, euh, parce qu'il est faible, euh, euh, euh, parce qu'il est patrimonialisé, parce qu'il est euh, occupé par des prédateurs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le cadre du commentaire de mon ouvrage, est incapable de conduire des politiques qui seraient susceptibles de permettre l'émergence de l'Afrique à, je ne sais d'ailleurs quel horizon. Alors effectivement. Après ce tableau sombre, que, que faire Alors, alors, alors, alors alors, et, je suis absolument d'accord avec mon voisin, la, solu la solution, c'est la solution, la rupture. Mais, euh, et je suis également d'accord avec vous, monsieur, la rupture en y mettant des mots. Rupture pour renforcer les capacités. Rupture pour que l'État soit Euh, euh, euh, chargé d'institutions autonomes qui continuent de fonctionner au service des citoyens, quels que soient les changements de personnes à la place. Mmh. Renforcer les capacités, à mon sens, c'est ça l'enjeu. Mm. Et c'est à cette condition-là, me semble-t-il, que nous, pourrons, euh, nous pourrions sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. Mmh. Partout en Afrique d'ailleurs, et pas seulement au Sénégal. Au Sénégal, c'est nous fait une belle transition pour, pour parler euh, de, de, de, votre livre. Nous restons toujours dans, dans le même sujet. Euh, tout à vous, fait. Vous, publiez euh, aux, éditions L'Armatan l'ouvrage État, corruption et blanchiment, le cas du Sénégal et, et du Cameroun. donc, comme le disait tout à l'heure Malik Nalsek, beaucoup pensent comme lui. La corruption, c'est vraiment, vraiment un cancer, surtout dans, dans, nos pays, dans nos pays pauvres. parce que comme vous le, vous le dites si bien dans votre ouvrage, c'est pas un problème simplement africain ou euh, un problème du tiers-monde. On, le voit toujours, tous les jours à travers les, les infos. Vous avez repris, repris plusieurs cas euh, dans votre ouvrage à travers, à travers la presse. On le voit, nous, euh, avec la France, dont on reçoit le plus de, de, <laughs> de, nouvelles chez nous, parce que, étant donné que nous sommes francophones, mais ça se passe aussi euh, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, euh, vous, on l'a vu au Japon, on l'a vu dans, dans, beaucoup de pays. La corruption, euh, euh, c'est vrai aussi le blanchiment, mais surtout la corruption, euh, les, les, commissions, les rétrocommissions, l'enrichissement sans cause, c'est un fléau mondial. Euh, mais est-ce que ce pas dans nos pays que c'est le plus dangereux je ne, pense pas qu'il, je ne faille raisonner de la sorte, et c'est d'ailleurs euh, euh, l'un des principaux axes que je que j'ai mm. suivi dans le cadre de, euh, de, mm. cet ouvrage pour euh, ne pas installer une différence entre la corruption en Afrique et la corruption euh, dans, dans, les autres, les autres, pays. La corruption est un mal, je parle dans mon, dans mon ouvrage d'une malédiction. Nous vivons sous l'empire de la malédiction de la corruption et du blanchiment, la malédiction de l'appropriation de la fortune publique au détriment des programmes de développement. Mmh. Euh, euh, euh, et les, les, coûts en termes de euh, les coûts en termes de finances publiques sont euh, absolument euh, explosifs partout, dans tous les États. Et donc la question c'est de savoir comment on en sort, comment on procède pour essayer de résorber cette situation absolument catastrophique, catastrophique de la gouvernance. Alors ce que j'ai tenté de montrer dans, dans, dans mon ouvrage, c'est que, euh, quoi que l'on en dise, euh, les États africains ne sont pas restés les bras croisés. Euh, on peut dire ce que l'on veut de la conduite de la politique euh, de lutte contre les biens mal acquis au Sénégal, mais c'est une politique publique qui est certes perfectible, je pourrais peut-être parler de quelques améliorations euh, qui pourraient être, euh, qui pourraient être amenées mmh. dans le cadre de cette, de, de cette politique-là, mais cibler de manière, de manière directe, de manière plus agressive encore des agissements de cette nature, mmh. mais en diversifiant les leviers, évidemment. Comme vous avez parlé aussi de l'opération épervier au, au, Cameroun. Tout à fait. Mais, mais comme vous l'avez si bien dit, est-ce que ce n'est pas dû au fait que, que c'est des politiques qui nous viennent un peu, un peu, un peu, un peu peut-être, voilà, de, de, des Américains ou bien, ou bien, ou bien de, de l'Occident, euh, en sachant qu'il y a, il y a une, euh, un nouveau, une nouvelle logique, il y a la, la, la, la logique de la bonne gouvernance. Est-ce que nos pays ne réagissent pas toujours, euh, comme le disait Malik Noël, que quand, quand, quand on les pousse euh, à bout, c'est quand il y a une pression venue, venue de l'étranger Est-ce que c'est pas un peu pour ça que qu'ils essaient un peu de c'est le, problème du mimétisme, hein, du mimétisme institutionnel, c'est-à-dire le plaquage d'institutions d'une aire géographique à une autre en pensant qu'en, qu'en l'appliquant de manière mécanique, on changera peut-être les, les, les, politiques. Mais je suis un peu plus nuancé parce qu'il y a des adaptations. Euh, la politique... Euh, euh, conduite au par exemple, et simple. Ça, on ne communique pas assez à cet égard des dispositions de l'article 26 de la Convention des Nations Unies en de lutte contre la corruption, qui prévoit l'incrimination de l'enrichissement illicite. Mmh. Bon. Mais au Sénégal, c'est acclimaté, c'est adapté, c'est fonction du local, en fonction des enjeux de la politique locale. Et, et, et l'une des priorités d'ailleurs, ce serait de faire en sorte que la politique de lutte contre la corruption, au Sénégal comme ailleurs, puisse se conduire euh, en étant totalement affranchie euh, des, contingences, politiques. Hmm. Euh, on, on, va revenir tout de suite euh, sur, cet aspect de, de illicite. c'est ce qui m'a un peu, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le livre, qu'on voit en étant, en étant euh, peut-être pas politique parfois, mais même en étant homme d'affaires, on, on, voit parfois que, que comme vous l'avez dit, un peu que, que, que, la corruption, paradoxalement, est, parfois un facteur de, stabilisation euh, sur le plan social, sur le plan politique. Euh, vous vous dites ici euh, que, que, au Mexique, par exemple, on assiste à une ère post-révolutionnaire, à une institutionnalisation de facto de la corruption, considéré comme un canal de négociation politique avec les dissidents, ainsi qu'un moyen de, réduire le niveau de la violence politique et de contenir les demandes sociales. Euh, vous, continuez un peu dans, le même, sujet. Ça, me rappelle, euh, par exemple, euh, une politique de quelqu'un co comme le président Ouad qui était là. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique, en fait, finalement, la corruption euh, Historiquement, en Afrique, noire, francophone, puisque c'est le mieux euh, pour l'avoir étudié, euh, la corruption est euh, sociologiquement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour mettre de l'huile dans les rouages de manière à faire en sorte que euh, ça ne coince pas. historiquement, le haut fonctionnaire qui occupe une position de pouvoir dans la haute administration pique dans la caisse, passez-moi l'expression, non pas pour s'enrichir, mais pour entretenir sa clientèle. Hmm. C'est donc dire que ce comportement qui socialement, euh, euh, euh, socialement valorisé, mais pénalement en tout cas réprimé, a une utilité sociale. Mm. Mais euh, à partir des années, euh, des années 90, hein, euh, je reviens sur votre observation tout à l'heure, l'ère des privatisations, les changements dans les politiques économiques sous la, la contrainte de la conditionnalité de l'aide économique, la corruption change véritablement de nature. elle devient, elle devient systémique en ce sens qu'elle va rejoindre la corruption internationale. Euh, le haut fonctionnaire, l'homme politique, qui s'enrichit au Sénégal au détriment de ses concitoyens, euh, va ensuite recycler l'argent qu'il a pris dans la finance internationale. Mmh. En d'autres termes, la parfois même la politique. Tout à fait, mmh. tout à fait. Et donc, euh, euh, la corruption euh, et le blanchiment deviennent consubstantielles d'une euh, d'une technologie de la finance criminelle. Mmh. voilà le changement auquel on assiste depuis, depuis quelques années et qui représente pour nos États un drame mm. considérable. Mmh, je veux dire que c'est un peu international. Vous l'avez précisé dans le cas du, financement d'Edouard de, Tout à fait. Euh, ça, c'est des cas avec les rétrocommissions, ce genre de choses, euh, où, où, ça devient carrément un, un processus de financement de, euh, de, de, de la politique. Comme nous sommes des élèves de, ces gens-là, donc nous on, on, aussi, on fonctionne un peu, un peu de cette manière. Tout à fait. Comme il y a une division internationale du travail, les économistes le savent bien, euh, cette finance criminelle-là, qui prend sa source dans l'appauvrissement de nos États, participe Euh, de, de, de l'enrichissement euh, euh, de, bah, des puissances occidentales, des, des, des institutions financières internationales. Hein. Vous avez les uns et les autres entendu parler du scandale de SwissLeaks mmh. il y a quelques semaines mm. et de la place qu'occupe dans, dans, dans, dans, cette affaire eh des flux illicites en provenance, en provenance de, nos, de nos États. Nous sommes là véritablement en présence d'un enjeu, global parce que ça conditionne l'État qu'on voudrait demain pour nos, pour nos pays, les politiques mmh. de développement qu'on voudrait demain pour, euh, pour, pour, nos enfants, mais également ça présente des enjeux de sécurité. Tout à fait. On se pose la question de savoir qui finance les organisations terroristes, où est-ce qu'elles trouvent cet argent qui leur permette de conduire des opérations aussi catastrophiques que le septembre ou des attentats euh, comme celui que, euh, qui a eu lieu par exemple hier en Tunisie. Ça vient si on ne réussit pas à tarir euh, euh, le, les flux illicites, et en particulier les flux en provenance de la corruption, de l'enrichissement illicite, de la prédation, eh bien, on ne tarira pas les hmm. sources de financement du terrorisme international et on ne se donnera pas les moyens eh de combattre euh, atteintes à la sécurité internationale. Avant de donner la parole à, mes camarades, juste... pour revenir un peu euh, sur, le problème de, de, de, de l'enrichissement illicite, moi, moi le, le, le, la partie qui m'a intéressé aussi dans le livre, c'est la partie euh, euh, qui, qui, traite du rapatriement des fonds, parfois, euh, comment faire. C'est vrai que vous, vous, nous avez brossé un peu, voilà, Vous avez fait l'état des lieux, de, de, ce qui est possible de faire, mais concrètement, vous n'avez donné aucun exemple de, de, véritable qui puisse se faire. mon problème, c'est qu'il est possible de, tracer cet argent et, de le rapatrier Parce qu'on voit que c'est vraiment euh, l'histoire des offshore, c'est une nébuleuse. L'argent entre dans un cycle où il n'est pas possible. Euh, si on prend nous le cas qui nous, qui, qui nous concerne, est-ce que par exemple nos politiques euh, en essayant de, tracer un argent qu'ils ne pourront jamais trouver et, de ce fait de se décrédibiliser. Parce que quand vous dites que oui, il a pris 4 000 milliards et qu'à la fin vous allez dire que c'est 4, 4 milliards ou 40 milliards, parce que vous n'avez pas su euh, euh savoir dès le départ que vous ne pourrez pas avoir cet argent et que, et pas, par exemple, des erreurs de stratégie en ce moment Est-ce que cet argent peut être rapatrié Tout à fait. je pense que euh, euh, l'un des axes d'une réforme euh, des politiques publiques en matière de lutte contre la corruption, c'est euh, la création de véritables agences de recouvrement, des agences de recouvrement avoirs. Le problème du traçage euh, euh, ne se pose pas de la même façon qu'il est possible de faire circuler de, de, de, de l'argent du Sénégal un paradis offshore en un clic d'ordinateur. Euh, les mécanismes de surveillance. Je parle dans mon ouvrage pour reprendre un peu la figure euh, du panoptique de Michel Foucault, je parle de panopticon financier, mm. euh, c'est-à-dire qu'on est entré dans une ère où tout se sait. Tout se sait. il est techniquement possible de savoir... parce euh... qu'on voit les flux d'argent, mais pour savoir qui l'a dépensé, ça appartient à qui, c'est ça le problème. Parce qu'ils disent, oui, l'argent a, a, transité, c'est parti de Singapour, c'est allé à, au Caïman, mais qui, qui a dépensé l'argent, euh, à qui appartient-il Alors, ça pose, ça pose un problème que le G20 a abordé lors du dernier sommet, c'est le problème euh, de l'identification des bénéficiaires effectifs, mmh. des bénéficiaires effectifs des, des flux euh, euh, des, des, véhicules utilisés. On peut créer. Euh, il y a un homme politique français dont on a levé l'immunité parlementaire hier à, à l'Assemblée nationale, qui semble-t-il avait avec comme prête-nom euh, un domestique ou quelque chose, mmh, quelque, quelque mmh. chose de, de cette nature-là. L'enjeu euh, nous avons les instruments. Le Sénégal a une institution remarquable qui est la Centif. La Centif qui est, je l'ai montré, année après année, euh, euh de milliers de déclarations de soupçons qu'elle exploite, qu'elle traite. Alors, qui finissent certes euh, euh, sur mmh. des bureaux ou dans des tiroirs de certaines administrations, mais les mécanismes existent. Donc c'est un axe de la réforme Un autre axe de la réforme, ce serait l'inclusion financière. Euh, euh, euh, évidemment, tracer, ça n'est pas évident quand les trois quarts des transactions se font en espèces. Il faut donc procéder à une inclusion financière, il faut donc élargir, et il s'agit également là d'un enjeu de renforcement des capacités, élargir l'accès au système bancaire du maximum euh, euh, du maximum de personnes euh, euh, euh et donc multiplier les instruments, les instruments mmh. permettant le traçage. Techniquement, le traçage, euh, le traçage est possible. C'est long, euh, mais c'est possible. Et d'ailleurs, en, en en, en, en, élargissant le délai de la prescription, parce que la, la Convention des Nations Unies euh, euh, euh, permet d'élargir le délai de prescription de certaines infractions, on se donne les moyens de permettre aux services enquêteurs de prendre le temps pour reconstituer les flux, mmh. reconstituer euh, les séquences de leur, euh, de leur transfert dans des conditions qui permettent l'identification et le rapatriement. Mm. Rapatriement qui est un principe fondamental de la Convention des Nations Unies. Mm. je, suis... pas économiste, technicienne ou financière. Euh, ce sera <laughs> monsieur qui posera ces questions-là. Mm. Moi, je vais poser plutôt des questions simplistes parce que finalement, c'est comme ça que je les paradis fiscaux, les montages financiers et une économie basée sur du, non substantiel, comment euh, un système économique Euh, qui a ce modèle-là peut en même temps lutter euh, contre la corruption, vu que de, facto ce système a besoin de cette euh, fluidité, de cette... pas contradictoire Ou peut-être que je comprends mal les choses a été contradictoire. a été contradictoire, euh, je dirais, Euh, euh, jusqu'à euh, jusqu'aux années 2003, c'est-à-dire l'élaboration de la Convention des Nations Unies en matière de lutte contre la corruption et même plus avant la convention de l'OCDE sur la corruption des agents publics étrangers. Mmh. C'est-à-dire que tous nos États permettaient, pour gagner des marchés, de corrompre, mmh.

Toujours est-il que depuis euh, la Convention des Nations Unies et puis les, ré les, résolutions prises régulièrement par le G8 et le G20, on a euh, une marginalisation euh, mhm. très régulière des paradis fiscaux. Mhm. Euh, on a la prise de, on a la, la, prise de décision de politique qui euh, les incite à, euh, à coopérer aux politiques menées. Euh, les États-Unis ont par exemple euh, élaboré le, le, le FACTA, hein, qui est mhm. un, qui est, une, qui est un, un, un instrument international qui permet de, de, de, de réprimer aux États-Unis euh, des actes de corruption commis à l'étranger. Mm -hmm. Bon, euh, euh, les choses sont en de, sont en train de changer euh, résolument euh, avec euh, la contribution des organisations des sociétés civiles en Afrique mais également dans d'autres pays à l'échelon international, les choses sont en mesure de bouger. je pense qu'on peut raisonnablement être optimiste dès lors que la volonté politique existe. Mm. Est-ce qu'il y a une logique de gatekeeping, c'est-à-dire de, euh, enfin, un transfert de fonds vers l'étranger, euh, à partir d'un certain montant, doit être justifié. Quelque, enfin, on peut mettre le barème. Euh, Alors, enfin, ce barème, est-ce qu'il est malléable et c'est un instrument. Ça, pourrait être un instrument euh, très intéressant dans les politiques menées. Ah. On pourrait, par exemple, limiter euh, euh, le seuil d'utilisation d'argent en espèces. Oui. Voilà. On pourrait également euh, euh, euh réduire, euh, diminuer le seuil des déclarations de soupçons. Par exemple, lorsque vous faites un virement à l'étranger euh, d'un certain, euh, certain, seuil, si le seuil n'est pas atteint, eh bien, votre banque ne, ne, fait pas la déclaration de soupçon si l'opération paraît, paraît, suspecte. Mmh. Et donc, vous avez parfaitement la possibilité de faire plusieurs virements en deçà euh, oui, du mais justement, Est-ce que le pas justement être ça C'est-à-dire ça peut être aussi plusieurs. Euh, à savoir, je sais que dans les agences euh, Western Union, euh, il faut présenter sa, sa carte d'identité et on a le droit de faire plusieurs finalement. Mais justement, de faire en sorte qu'une agence, quand on voit, c'est étrange, cette agence, elle fait plusieurs transferts de temps c'est quand même aussi un, enfin c'est des maths en fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, ça pose. C'est des probabilités, des statistiques et des maths. et est que ça ne peut pas, ça, ça, ça ne peut pas s'appliquer dans un système financier Absolument, et ça s'applique d'ailleurs déjà euh, dans le cadre de ce que l'on appelle euh, la politique de gestion des risques mmh. des organisations, euh, des institutions financières, et que dans cette sous-région, la CDAE, e, le, le met en œuvre de manière très très très euh, très très efficace. Les mécanismes de contrôle existent, mais on a beau faire toutes les déclarations de soupçons possibles et imaginables, si, les rapports, volonté, ouais. si les rapports ne sont pas exploités par mmh. l'institution qui seule peut actionner euh, la justice pénale, eh bien, mm. euh, euh, on ne parviendra pas à éradiquer le problème. Ahmed Soumaré. Merci beaucoup, merci monsieur Nguelele. Tout d'abord, euh, félicitations pour euh, ce bouquin. Euh, je travaille depuis 18 ans dans le blanchiment. Vous avez cité le GABA tout à l'heure, donc euh, j'ai structuré pas mal de trucs au niveau du GABA, de toute la CDAO. Est-ce que, et je dirige le seul institut euh, francophone, des 25 pays francophones, qui peut faire des le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme de la prolifération. Donc, euh, un bouquin, parce que le blanchiment est très technique. C'est trop technique. C'est pas très technique, c'est trop technique parce qu'il touche l'aspect juridique, l'aspect fiscal, l'aspect financier, on rentre dans le pénal, ce qui fait que euh, les gens, pour se retrouver, c'est très difficile. Donc, euh, par rapport au, au livre donc, que vous avez écrit, je vous ai dit que vraiment félicitations parce que vous avez Merci. essayé d'expliquer. Euh, il y a deux choses vraiment, ou trois choses où je ne suis pas du tout, je ne vous suis pas lorsque vous faites la le Cameroun ou Lorsque vous connaissez les juridictions, donc au niveau GABAC et au niveau du GIABA, qui sont donc, euh, pour ceux qui, nous ceux qui ne comprennent pas le blanchiment, on a des des, des, des, des, subdivisions, des entités qui représentent plus ou moins le GAFI, le GAFI à l'intérieur de la Les de, de, de style GAFI. Donc, euh, ces ORG, organisations régionales de type GAFI, ou de style GAFI, Au nord, vous avez le Gafimoan pour l'Afrique du Nord. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Djaba. En Afrique centrale, vous avez le Gabak. Vous avez Assamlak qui regroupe l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. Et lorsque vous allez dans le, dans le, dans, dans le site du Gafi, vous tapez Cameroun, vous ne voyez rien. Pourquoi Parce que le Djaba et le Gabak ont été mis en place presque à la même époque. Mais contrairement au Djaba, le Gabak à politiser donc euh, cette, ce mécanisme donc, de lutte contre le blanchiment des capitaux, contrairement donc, euh, au, à l'Afrique de l'Ouest. Oui. Aujourd'hui, euh, presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest, les quinze pays, plus les pays associés qui est Sao Tomé et Principe, passent maintenant au deuxième tour des évaluations mutuelles. Oui. Bien. Lorsque vous voyez donc cette, cette progression au niveau des typologies que vous avez dit dans vos bouquins et tout ça, on voit, il y a une progression énorme de la lutte et d'une harmonisation avec euh, la loi de 2004 et de 2009, de 2004 sur ce qui concerne la, la, la, pour les pays de la CDAO de, de l'UMOA, donc surtout au niveau du Sénégal, sur euh, euh, le blanchiment et sur le financement du terrorisme en 2009. Et quand on voit cette harmonisation, ce qui m'a un peu déboussolé, C'est cette comparaison que vous faites entre le Sénégal, qui est l'un des pays les plus avancés, je veux dire, de l'Afrique de l'Ouest, dans la politique de blanchiment. Et par rapport donc au, à la, comment s'appelle, à la, au Cameroun, qui se trouve dans le système GABAC, que je connais bien, parce qu'il y a des pays de GABAC, euh, du GABAC que nous, nous formons au niveau de leur scientif. Donc, à partir de là, donc, cette comparaison, ça m'a un peu déboussolé. Donc euh, peut y a des institutions, je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Vous avez fait la comparaison de l'OFNAC donc, euh, qui, qui, lutte contre la corruption avec le CONAC qui lutte contre ouais. la corruption au niveau du Cameroun. Mais je, je, ne sais pas donc euh, pourquoi cette comparaison. Donc peut-être que c'est votre, c'est votre spécialité des, des, des, trucs comparatifs. Mais j'aimerais bien, j'aurais aimé à la place de comparer le Sénégal vu sa, son avancée, donc son degré d'avancement donc au niveau euh, de la politique avec un autre pays, par exemple, qui a un truc similaire de voir. Mais quand on part dans deux systèmes totalement différents, donc le GABAC, c'est presque qu'ils n'ont presque pas bougé, je veux dire. Ils sont observateurs depuis 2012. Vous avez cité le, le, le GABA, donc de, qui, est, qui est devenu associé. J'y étais à Amsterdam pour l'association du diable. Ça m'a trouvé sur place. Mmh. je ne comprenais pas. Lorsque euh, mademoiselle Lian posée par rapport aux paradis fiscaux sur le recouvrement. Je, je suis désolé, on ne peut pas recouvrer aujourd'hui. On ne peut pas recouvrer de l'argent. On peut savoir où ça se trouve, mais on ne peut pas le rapatrier parce que les organes qui sont donc les juridictions non coopératives où se trouve l'argent, qui sont les paradis fiscaux, euh, ils ne rendent de compte à personne. Ils, ils, sont autonomes, ils ne rendent de compte à personne. Si Alune met son argent, donc ce n'est même pas le nom d'Alune. Vous avez ce qu'on appelle les nominis. Les nominis, ce sont des personnes comme, vous, dites, OK, moi je suis prêt à me donner mon nom, on me paye tant par mois. il gère mon argent, mais c'est un Chinois qui est dedans ou un Japonais. Parce qu'on sait que lorsqu'on va faire le maillage, on va regarder vos parents, vos anciens parents, vos copains. Vous et les Japonais mm. comme Et lorsqu'on trace jusqu'à savoir par rapport, au, par rapport au mouvement de l'argent, on sait que ce compte-là, comme ça a été fait dans le cas que vous avez dit, ce compte-là, il appartient à telle personne parce que les liens sur les, transferts. Mais vous ne pouvez pas rapatrier parce que le nom du compte, c'est un japonais, Kushimoto, qui est dedans. <laughs> Et c'est ça le problème. Le rapatriement devient difficile. La dont vous avez parlé, par rapport aux Suisses, les Américains ont tapé sur la que tous les Américains qui ont, qui ont, qui ont transféré, qui n'ont pas payé euh, de l'argent qu'ils ont transféré en Suisse, de le rapatrier ou ils ferment tous les trucs suisses. Mhm. Les Suisses ont donné le les noms de tous les Américains qui n'ont pas payé. c'est normal, parce que c'est des trucs bilatéraux. Mais dans le cadre des paradis fiscaux, sur les rapatriements, aucun paradis fiscal. Et ce qui, est, ce qui est beaucoup plus complexe dans ça, et ce qui est rigolo, c'est que ce sont qui ont des paradis fiscaux. Vous avez les États-Unis, vous avez Jersey et Delaware, qui sont des paradis fiscaux. Vous avez des euh, Saint-Barthélemy et autres qui appartiennent donc à la France. Vous avez euh, Gibraltar, Bermude, les îles Vierges, Barbade et tout ça. Ce sont des pays officiels qui sont membres du GAFI, qui les appartiennent, et ils ont des juridictions, des territoires. Ce ne sont pas des territoires indépendants avec des, des leurs drapeaux. Non, ils appartiennent aux pays qui sont membres du GAFI. Ce qui fait que vous dites il y a une volonté, il n'y a pas de volonté réellement. Parce que s'il y avait la volonté, Saint-Barthélemy, qui est français, ne peut les îles Barbades, les îles Vierges et tout ça, non. Les Britanniques, quand vous allez aux îles Caïmans, ils ne peuvent pas l'avoir s'ils y avaient une bonne volonté. Mais il n'y a pas de bonne volonté. Vous avez toutes les banques, les grandes banques du monde ont tous des filiales dans ces, dans ces pays. Toutes les grandes banques mondiales, ils ont tous des filiales dans ces zones. Mm. Je ne comprends pas. Mm. Je travaille dans le blanchiment Donc, euh, vous, donc l'approche que vous avez, j'apprécie beaucoup, mais je dis, je suis moi sur le terrain du blanchiment. Je fais des évaluations mutuelles pour des pays, stratégie nationale ou autre. Donc, euh, je sais que ce n'est pas possible. Entre la littérature et la réalité, il y a, y, a, y a, vraiment un On euh, de, répondre dans, l'ordre. Mm. sur la comparaison, tout de suite, l'objectif était était à partir de situations similaires de mettre en évidence des contrastes, parce qu'on est sur des situations qui sont, euh, qui sont contrastées, mais partiellement quand même. Je m'explique. Je vous ai parlé tout à l'heure d'État néopatrimonial. Mm-hmm. La structuration de l'État au Sénégal et au Cameroun, c'est exactement la même chose. Mmh. Exactement la même chose. On a un État faible qui n'a pratiquement pas de capacité on a un fonctionnement néopatrimonial où dans le rapport à l'institution, vous avez cette, cette tendance à s'approprier euh, les, les, les, attributs, les, attributs, les du pouvoir. Et puis, on a euh, euh, l'utilisation euh, à des fins de stabilisation politique de la violence, de la contrainte, on en parle beaucoup dans le contexte, le, actuel, pour, pour, maintenir, pour maintenir les équilibres. Premier élément. Deuxième élément, on a euh, l'accès à l'initiative PPTE qui a permis aux institutions financières internationales d'introduire toutes ces réformes-là dans les agendas, de, nos États. Alors, qu'est-ce que ça donne des institutions qui se ressemblent au niveau euh, sous-régional, euh, le GABAC, le JABIA, etc., mais qui fonctionnent de manière radicalement différente. Pourquoi parce que la politisation dans certaines zones, c'est le cas au Cameroun, vous l'avez dit vous-même, est plus forte que, euh, ce que, l'on observe, ailleurs. Mais les dynamiques institutionnelles existent. Elles et euh euh, euh, euh, l'espoir, alors l'espoir, fait vivre. euh, sauf qu'en matière de corruption et de blanchiment, euh, euh, euh on, doit, on quand même faire autre chose que, de se contenter d'espérer. Il faut passer à l'acte. Euh, on, a quand même des, on a quand même des avancées, euh, des améliorations qui doivent permettre à nos pays de sortir de, de, de sortir de l'ornière. Sur la différence entre les organismes régionaux type GAFI, Europe de l'Ouest, Afrique centrale et même ailleurs, Je pense pour ce qui me concerne que euh, euh, l'avenir, et il y a une initiative en ce sens au niveau de l'Union africaine, c'est euh, euh, une véritable institution africaine, euh, euh, type Gafi, arrimée pourquoi pas à la BAD, avec de véritables instruments permettant justement le, le traçage. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. alors, en ce qui concerne le, le, le rapatriement des avoirs logés dans les, paradis fiscaux, euh, euh, si le rapatriement n'est pas possible, il y a d'autres leviers. On a la confiscation des avoirs identifiés. Pas dans les paradis fiscaux. Oui, mais euh, euh, ceux qui ont mis dans, le paradis, dans les paradis fiscaux ont mis ailleurs aussi. Peut-être que des pays comme la Suisse ou Luxembourg peut-être, parce qu'ils sont des pays européens ou autres. Voilà. Et Mais et... les îles Caïmans, je n'ai jamais vu, jamais entendu quelqu'un des îles Caïmans, Barbade ou l'île Vierge ou autre, qu'on rapatrie l'argent. Parce que eux, leur job, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ce tout sont tout des fait. institutions qui sont là pour protéger ceux qui amènent l'argent. Ils ne vous demandent pas d'où où, où, où, vous sortez cet argent. Mm, voilà. Ils, ils, ils, sont là, leur job, avec leur barbade d'avocat, pour pouvoir protéger vos biens. Donc, euh, euh même les employés signent des ils signent des décharges comme quoi que n'importe quel employé qui des qui qui qui donc des des révélations il est exclu et on tout le fait, traduit en justice. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi sur le fait qu'aujourd'hui euh, dans le contexte que j'ai décrit et que j'appelle le panopticon financier, c'est-à-dire ce système mondialisé de contrôle financier, mhm. il faut quand même être sacrément fou ou alors euh, accepter une prise de risque considérable pour

une erreur stratégique parce que là. Qui, qui, qui, mm. Moi, je je, je, je je, suis pas, euh, je n'ai pas une lecture aussi extrême. Mm. Euh, toutes les politiques qui ont été menées jusque-là ont ceci de positif euh, que elles ont la stigmatisation des paradis fiscaux. Hmm. de la finance, euh, ne se passe plus aujourd'hui comme, comme, se passait jadis. Mm. Et je suis optimiste, pour ce qui me concerne, mm. en considérant qu'on va, euh, à échéance 20 ans, vers une neutralisation complète des habitudes en ce sens. Mm. nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai que, comme euh, l'a dit M. Moumarek, c'est vraiment un excellent ouvrage de, un recherche euh, qui vraiment qui, qui, est exhaustif, Vraiment, pour ceux qui, qui, sont intéressés par le sujet, euh, c'est très riche enseignement. Euh, euh, comme nous l'avons dit, nous avons été aussi très heureux de vous avoir sur ce plateau parce que vous avez fait le déplacement merci pour venir participer à l'émission. Ça nous, a fait beaucoup plaisir et, et nous conseillons l'ouvrage à, à tout le monde parce que c'est vraiment un ouvrage de qualité. vous allez permettre de terminer l'émission juste avec, avec, Monsieur. avec Monsieur Salle, qui, nous vient lui aussi de Paris, qui est le présentateur de l'émission Star Confidence. qui, qui, qui est une émission d'interview de, euh, de, gens de la diaspora, de Sénégalais qui sont, qui sont, qui sont dans, la diaspora. On a, on a eu euh, à, à, voir les interviews de, de Oumar Sy, euh, d'Absat aussi, de Pape Diouf. donc, c'est quoi un peu la, la, la genèse de cette émission bah, tout d'abord, je tiens à vous remercier euh, pour cette invitation ici au Sénégal pour parler de cette émission Star Confidence. Euh, pour être clair, cette émission, cette, ce magazine est né d'une idée autour d'un thé avec un, un ami euh, français. Donc cette idée est franco-sénégalaise. Mm. Donc moi aussi je suis franco-sénégalais, j'habite en France. Et on était autour d'un thé un jour et mon ami Maxime Doucet qui me dit euh, vous les Sénégalais vous êtes partout. Et je dis oui effectivement on est partout, on est dans tous les <laughs> domaines d'activité. Et on parlait du cinéma, de la musique, euh, des entrepreneurs. Et je lui dis rapidement, euh, serait bien un jour de faire un, une, euh, un magazine où on parlerait de, du Sénégal euh, pour leur faire un portrait, les présenter au public euh, sénégalais. Donc euh, cette idée est née comme ça et donc mmh. on, a, projeté de, de, de, le faire ici pour le Sénégal et on a proposé à deux STV de le diffuser. Et donc cette idée a mmh. été, bien accueillie par la direction qui nous a totalement soutenus dans ce mmh. projet. Parce que c'est surtout la qualité des des intervenants. Parfois, vous parvenez à avoir des gens qui sont vraiment très, très On sait que Omar Sy aussi, il, actuellement, il vit aux États-Unis. Oui. On, se demande comment vous faites parfois pour avoir, tous ces gens-là que vous parvenez à interviewer. déjà, le but, c'est de faire un portrait euh, relatant de, leur parcours, de discuter un peu, de voir comment ils ont réussi, comment ils ont réussi à s'imposer dans leur domaine d'activité. Donc Omar Sy, c'est la personnalité préférée des Français. Euh, euh, le but, c'était de le présenter au public sénégalais qui ne sait pas comment il s'est, euh, quel a été son parcours, par quoi il est passé pour euh, arriver à ce stade. Donc vous dire comment j'arrive à avoir ces interviews, je ne sais pas si je, peux vous donner tous mes secrets, ah, <laughs> mais voilà, donc on essaie de travailler, c'est des contacts avec ses attachés Après, voilà, c'est des relations, c'est un carnet d'adresses, donc on essaye de, d'avoir le maximum de personnalités de la diaspora pour euh, donner de la matière au public sénégalais. Hmm. Donc, euh, c'est principalement ou bien c'est tout le temps des, personnalités sénégalaises ou bien c'est panafricain Le projet, au départ, il est lié, il est lié à l'Afrique euh, dans sa globalité. Le but de ce, magazine, on, a, le, but euh, vraiment, c'est d'aller voir toutes les personnalités de la diaspora africaine qui réussissent dans le monde entier. On en a mm. partout aux États-Unis, euh, même au Japon, on a des Sénégalais ou même des Africains qui réussissent dans des domaines d'activité euh, variés. Donc euh, voilà, le but commencé au Sénégal, on a eu la confiance de pour nous pour diffuser ce, ce, ce, ce projet-là. Donc euh, euh, Sénégal et ensuite on mmh. espère. Euh... C'est un magazine qui est euh, de 26 minutes, le le JT normalement. Donc il y a la bande-annonce qui passe sur 2STV. donc, on a des, personnalités comme Omar mm. Pape Diouf, euh, Absatoussi. Mm. Euh, euh, on, va juste pour avoir une idée, on va, demander à Mané de nous passer la bande-annonce et après on revient tout sur le plateau avec Sassoum pour qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Mané, dès que Alors pour ce cinquième numéro, je vais à la rencontre de l'une des figures de la diaspora sénégalaise. J'ai nommé Omar Sy. Je suis Omar Sy, euh, je suis né, j'ai euh, grandi en France et euh, d'un père sénégalais, d'une mère brésilienne. Dans Star Confidence, Omar Sy revient sur la sortie de son dernier film Samba, dans lequel il joue un sans-papier sénégalais. Et je trouvais que c'était euh, intéressant d'avoir euh, finalement comme héros de cinéma un sans-papier. Pour sa première interview sur une chaîne de télévision sénégalaise, Omar Sy a profité pour laisser un message personnel au président de la République. Je m'adresse directement au président, euh, cher Macky si vous m'entendez. Tout sur Omar c'est bientôt dans Star Confidence. Euh, <laughs> bonjour et à très vite. <laughs> Sassoon, euh, qui, qui s'y connaît bien en, en audiovisuel parce qu'elle a, elle a été un peu productrice en France aussi. Ouais. Ah <laughs> de la euh, prod en freelance pendant 5 ans. Euh, j'aime, beaucoup, tout ce qui a voir avec la télé. Euh, euh, votre, émission, je ne peux, parce qu'on a parlé un peu avant, le, plateau, donc vous savez ce que je pense de la diaspora, de, la nécessité d'avoir une, image positive des ressortissants de l'Afrique et d'être dans une logique d'africanité et de panafricanisme. Euh, Est-ce que d'ailleurs ça, ça, ça, ça n'explique pas votre, euh, votre succès Parce que justement, je pense qu'on est, dans, on est arrivé à un point où beaucoup de personnes, euh, beaucoup d'Africains et de, des gens des îles ou d'Afro-descendants euh, dans le monde entier ont, tout, je pense, une conscience de l'importance euh, de, de, dire au monde qu'on qu est là, qu'on qu travaille, qu'on qu a des choses à contribuer et que c'est à nous que notre destin est entre nos mains et qu'on n'est pas un, un, langage de victime, justement. Et euh, de, donc de raconter ces histoires de succès partout dans le monde, que ce soit en France, pour les Français, euh, parce que vous êtes Français, il y a des Français africains et qui doivent faire en sorte d'exister en France, euh, parce qu'ils sont Français et que c'est là-bas qu'ils doivent exister. On n'est pas dans une logique de Marcus Garvey et que tout le monde revienne. Euh, enfin, c'est révolu, révolu, il faut qu'on existe partout. Euh, quel, est, quel, serait, vous, pour vous penser, le plus grand défi Euh, pour, euh, pour ce que vous faites. Est-ce que vous avez toujours une réponse positive Est-ce qu'il y a vraiment cet essor que je, je pense reconnaître, mais est-ce qu'il est réel euh, De personnes qui ont cet enthousiasme pour, pour faire en sorte que enfin, l'Afrique et les, les, la diaspora en général soient vues autrement Oui. Bah, votre, votre, réflexion est intéressante. Moi, je pars du principe qu'il faut avoir un discours positif. Mmh. Mais mais les autres invités ont eu un discours très sombre de l'Afrique. Ah et c'était, ça m'a, euh, un peu, touché tous ces discours sur la corruption, sur, euh, sur qui est la mondial, hein, qui est pas oui, africaine, qui mondial, mais le, bouquin est, lié à l'Afrique, au Sénégal et au, Cameroun. Euh, je, pars du principe que j'essaye de montrer une image positive de l'Afrique, et je, suis persuadé qu'on n'a pas besoin d'être euh, au Sénégal ou en Afrique même pour être africain. Donc de ce que j'essaie de faire, c'est de prendre, de mettre en valeur des parcours, des parcours africains qui sont à l'extérieur. Oui. Mmh. Donc euh, le travail, il est là, juste le mettre euh, Déjà, vous euh, avez un, potentiel invité juste à côté de vous. Hmm. Donc euh, une fois retourné en, France, je pense que vous pourrez voir le parcours de M. Engel Engele, donc euh, un parcours très brillant. <laughs> le, succès, enfin la diaspora n'est pas qu'africaine, tous les pays ont, de, diaspora. Il y a des mmh. Français ici, il y a des Français aux États-Unis, il y a des Chinois au Sénégal. on a tous, toute culture a une diaspora. il faudrait pas qu'on soit toujours personnes qui souhaitent réussir là où ils sont. Mais il faut, par contre, la même euh, manière de faire que les autres diasporas, où on a une logique de, de, de, de là où on vient et de ce qu'on qu peut orienté Afrique. ce que j'ai voulu montrer avec et être sénégalais en dehors de l'Afrique. Mmh. Et qu'on a euh, aussi montré le parcours Parce que quelqu'un comme Omar Sy, aujourd'hui, vous parlez d'Omar Sy à Dakar, tout le monde le connaît. Mmh. Mais personne ne sait par quoi il est passé. Personne ne sait qu'il a commencé en faisant de la radio, en mhm. ayant des difficultés, mmh. ou euh, quelqu'un comme Pape Diouf qui peut vous dire qu'il a été manutentionnaire. Mhm. Euh, tout ça, c'est des choses que le public sénégalais ne sait pas. Et euh, le Sénégalais de base va penser que euh, Pape Diouf euh, a tout de suite réussi comme ça, sans passer par des difficultés où il n'a pas été... modèle, modèle sous-vêtement. Hein. <laughs> Donc euh, voilà, c'est des choses, c'est des choses, je pense qu'il faut montrer, c'est des, des, des, exemples, c'est des gens euh, dont on doit s'inspirer pour, euh, pour déjà les Sénégalais ici qui sont au Sénégal, mais aussi les Sénégalais de l'extérieur qui vivent dans des conditions parfois difficiles. Mmh. Donc c'est des parcours de réussite qui, je pense, méritent Mm. d'être présenté à, mm. à, au public sénégalais et au public africain. Un mot peut-être à euh, Maître Maré Non, moi je trouve que c'est euh, très positif. Mm. Donc, euh, du fait que j'ai vécu beaucoup longtemps aussi donc à l'extérieur, l'image que reflète et les, les, comment le racisme, entre guillemets, ben, ou bien sans guillemets, que les Africains vivent euh, en Europe ou aux États-Unis, je le, j'en suis vraiment donc conscient. Et je trouve qu'il y a beaucoup de réussites. Donc ce que je vous, ce que je vous euh, conseille, c'est qu'il y a un, il y a en 2014 un Sénégalo-Béninois, franco-sénégalo-béninois, qui est né ici à Dakar, mhm. qui a été classé quatrième sur les meilleurs scientifiques au niveau mondial, derrière euh, Steve Jobs et euh, le euh, Mark, euh, le, le, créateur de Facebook. Il, était, il est Zuckerberg. Il était numéro, numéro 4. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, qui a développé, qui a fait ses études Lyon, qui a développé un truc robotique sur euh, les trucs mm. Mm. de bien, parce que mm. beaucoup de gens ne le connaissent pas ici. Oh, Je trouve que c'est quelque chose de très positif, de bien, de montrer que les immigrés qui sont de l'autre côté, donc ne sont pas que des éboueurs ou des gens qui y des des immigrés qui sont, qui sont à l'extérieur, euh, qui n'ont rien à envier donc, à ceux qui sont nés sur place. voyez ce que je veux dire? de la connaissance, au niveau technique. C'est bien donc de les parce que on, les, les, les référentiels qu'on a ici, on a 70% de jeunes moins de 30 ans au Sénégal, comme la plupart des pays. Donc la plupart pensent à partir. Mmh. Parce qu'on me la question, pourquoi tout le voyez ce que je veux pensent tous à partir. Je veux dire que quand on connaît ce qui se passe là-bas, que vous soyez ici ou au Mali ou ailleurs, c'est exactement pareil. Si vous mm-hmm. avez de la connaissance dans votre tête, vous pouvez, vous pouvez réussir partout. Mm-hmm. Et ils réussissent très bien. Je trouve que c'est très bien de montrer l'aspect positif. Donc, par rapport à, euh, aux référentiels qui sont ici, pour qu'ils puissent au moins comprendre que Donc euh, il n'y a pas que donc, le mauvais côté qu'on puisse voir de l'autre côté. Il y a des gens qui réussissent, qui sont très discrets, mm. qui sont très discrets, qu'on ne connaît pas du tout, qui sont dans leur monde, mais qui travaillent donc vraiment dur et qui réussissent. Aux États-Unis, c'est pareil, en Europe, c'est pareil. Mm. Je trouve que c'est très positif et je vous encourage. Pas du tout. J'en ai vu deux. Non, j'ai vu celui de Oumarcy, je pense. Est-ce que vous, vous interviewiez que des personnalités ou est-ce que vous interviewiez aussi des, des hommes d'affaires, euh, enfin, des gens qui ont un rôle autre Parce qu'une chose, c'est que vraiment, j'aimerais que les, les, les, jeunes ne veuillent pas tous devenir, ne veulent pas tous devenir des, des chanteurs. Il n'y a rien à critiquer sur ça. Hein. Non, il n'y a, a, rien contre ça, mais il faut qu'ils disent que je veux devenir médecin je veux devenir euh, euh, ingénieur. Euh, on de, on ne suscite pas assez l'intérêt pour ces qui sont absolument nécessaires pour le développement économique de, de tout pays. C'est aussi le propos de, ce magazine c'est d'aller voir de, des personnalités qui je dis parce que ça, ils okay. deviennent des personnalités parce qu'ils réussissent dans leur domaine d'activité, mm. mais qui touchent à tout domaine d'activité justement l'entrepreneuriat, la politique, euh, la musique, euh, la photographie, euh, euh, l'art, de, la dans tout, la science, la cuisine, euh, donc ça touche un peu à tout et le mm. parce que d'habitude, quand on parle sénégalais, moi, quand j'ai mes amis français qui me parlent du Sénégal, ils me parlent des joueurs de foot mm. ou de Youssou mm. À croire que nous savons que chanter ou, jouer au football. Mm. Donc, euh, sachant qu'il y a d'autres personnalités qui réussissent à l'extérieur, je pense qu'il faut les nous pour la suite de votre, de émission. Euh, monsieur Stéphane Engelengele, nous avons été très heureux aussi de vous avoir euh, sur ce plateau. Je rappelle euh, publié aux éditions L'Harmattan, État, corruption et blanchiment, euh, le cas du Sénégal et du Cameroun. Euh, très heureux aussi de, de, d'avoir reçu euh, Monsieur Malik Noël Seck, euh, qui est venu aussi nous faire un peu parcourir avec nous l'actualité politique. nous allons, avant juste peut-être de, de passer de euh, de passer à la deuxième partie. Juste euh, avant de vous laisser partir, M. Euh, Monsieur Soumaré, vous, vous, avez, euh, je pense, vous organisez le FIED. Euh, le FIED, exactement. Le FIED, c'est quoi exactement Le FIED, c'est le Forum Intelligence économique et développement. Mmh. C'est un forum qu'on a commencé en 2000 à Paris, à la Banque mondiale, et avec comme partenaire l'OCDE et l'UNESCO. Et on l'a fait, donc presque tous les ans jusqu'en 2006 Après, on l'a fait tous les on va le faire au Sénégal ici, le 16 et 17 Donc y aura toute la communauté d'intelligence économique donc, qui vont le problème de mondialisation et d'émergence, mm. avec tout ce, que ça, des investissements, et l'aspect, donc euh, le problème du blanchiment, parce que quand il y a investissement, il y a toujours des petits malins qui veulent euh, donc amener l'argent sale. Donc euh, de voir toutes les problématiques de développement que ça pose, de compétitivité pour les entreprises au niveau mondial, de voir comment nos pays doivent avoir une certaine donc, démarche dans leur modèle de développement endogène. Mmh. nous allons tout de suite euh, revenir pour la deuxième partie avec le photographe le rappeur Office, ainsi que le, le festival euh, du Sahel, euh, juste après une courte pause. À tout à l'heure.